acca mbir birmi mbir mi dembi baik mi la acca baykat yi salaamaaleykum dugub ja gerte gi ñor na lay si ngay si bëggatam semua dëkk ba sering Sëriñ doomu doomu Poussi Ngueye di Ami Socé Touré jëlal nga joxe ko jëm bi réew acca waa groupe cent pour cent ceeb bi cent pour cent ngoyaan ca mu mel ni gars yi fëgg nañ guddi bi kii kell alaaji Mamadou Touré doomu kër Birane sa Amérique waaye Moussa Touré kër kër kër Baba Kumba kii kan la Babacar Touré ana Assane Touré <laughs> dimbi réew acca di ci nuyu suñu Baye Cheikh Diagne Adja Ndeye Goute Mohamed wala Baye Moustapha Diop groupe fa min janyin bi day dem bu ñu doon waxtaane lu am solo mm. wàllu joxe mu mel mi nga bëgg a tumuraanke bu doon garab la ma ne rag na ba booy gis doom yi bëreetut acca dañuy faral di wax ne kuy xaar man-man baa am am doo ko joxe doo ko mës a def kenn ku nekk fi nga tollu sa tolluwaay sa am am sa man-man moom ngay joxe sang bi tax yàlla xamal yépp moo gën a màndu gën a séddale wallaay dafa xool ba pare na kenn ku nekk nañ ko jox wàcc waayam su boobaa kenn du mer kenn du gedd lay ku ne am na loo mën a joxe acca dinayu bàyyi Mouhamed soxna di mbiru mi nee na <laughs> wallaay ku nga xam ne praata la suur ñu jox la mbana fan la séddale loo xam ngeen ni mbana ceeb gu ñor saako ceeb bokkuñ boo ko bala nga xam ne wutee nañ ngay denc joxe nag day sekki ceeb xam ngeen ni mbana ceeb gu ñor mënul yàgg su passé surna bi ba amul sens <laughs> taalibe yoo koy jëriñoo te dañ koy weer buñ ko toggaatee ceeb rek lay dal waaye saako ceeb boo teg ne mën nga am cuuraay gerte mën nga saa am maafe mën nga am yaasa mbaa cuf mbaa nga am si ceeb mbaa sereng wala mbaxal mbaa sombi acca nee naa joxe dafa mel ni saako ceeb moo gën a sakkan ndax day zekk nañ joxe joxe taxut a ñàkk waaye dañuy wax na xol a koy def bim mbir suñu bàyyi ji bàyyi Cheikh Diagne bàyyi bu bi mag ñi lañ naan jog wuti njël waaye fañ laan dajeek <laughs> ñax googu ñuy wax xaaxaar dana ñetti yoon lay focc loolu la mag ñi daan wax foccet ñu njëkk gi ñu laan jog jël de wuti njël ñoo koy jël ñaar la foccal bi ñu laan dóobi sunu ñette la foccal bi ñu laan gasi gerte acca joxe neex na lool waye nañ ko def ci la ko def ci kersa bañ di joxe individu yeeg télé yi nambahna. joxe naam si nyake ño xamne dañ ci ñaxé waye bu hande rek bu yagge ci bop nga gis ta yow da ngay jex yakko nañ fexe di joxe te yàlla tax kenn ku nekk am na loo mën a joxe nañ jox man ñi seen war ma